bamba woona waa jéere ñëw ñu dem Tuuba wuy ji Muudu Mbàkke moom baare bamba woona waa géej bamba ñu dem Tuuba Moodu Mbàkke moom baare yàllal baare yàllal baari Sëñ Bamba woote na géej am ak jéere Sëñ Bamba nee na leen sant ma yàlla sa borom la ko dale ci ganaar ba ci gëléem bul xeeb ganaar bul yéem gëléem sëñ Bamba nee na ñëw leen sant ma yàlla sa borom yéen ñëw leen ma yàlla sa borom sëñ Bamba mosoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jeese sin ñu won ko fa mboolem lay xew xaloo xew ba dem Tuuba mënoon naa wëññeekoo foofa waaye kon du am mayem yi mu am booleeg jëloore yi Tuuba andil nga nu yow Seex Bamba kii maan xel da jul Bamba tabax nga fi jàkkay doj judul mabbu fi Tuuba andil ngeen nu ay wërsëg yu doy yaanu jàmmaloo danga togg sootal jox nu muñ yow ba dem Tuuba andil ngeen nu mbaaxaan ak joxor mu rek kumba ci islam te waajoon nan ba jëm daaru ak Tuuba andil ngeen nu ay wërsëg yu de yaanu jàmm loo danga jox ma mu yiw ba dem Tuuba ataaya kafe taalaale baawoon xamul koon ndaxaara xorom lañ daa baxal door a xëy dem Tuuba alarba ak dibéer lañ daa demal doomi soxna yow nga jox ñi mënuy daw di sellal ba dem Tuuba moog yow dañuy nasaraanu jërëjëf sëñ Bamba jërëjëf sëñ Tuuba karaamaati xar baax ak wilaayaati mbooti xol ku leen mës a am sel boo ku dul yow Sëriñ Tuuba ku dul yow da daasal boo ka da ko kër yal kee ka yaqaatee ka fàttee tuuba nga yor lamboo rahmatullahi alayhi li ngay muñ te man koo faj amoo kem sëriñ tuuba ku lay zuru def laari boo geesu woon mu dee umul um nga soo daanak ba yaa diina Tuuba gouverneur yi ak soldat yi xam na la baafale kumaandam yi ak kàngam yi xam na la bis Tuuba Kajoor ak Bawal min Saalum ak Fuuta ak Jolof isay may lañuy baawaane yaay géej gi wër Tuuba girub tër bi yaañi xaw sum jant yaa ko def fa jug nit ku ñuul mos ko fii Tuuba ku ci bañ a Bamba ku ci bañ a Tuuba xam naa de ku gumba dugg si réerug jant man yem naa Sëriñ Bamba ku ci bañ a ànd ak Serigne Touba xam naa de ko gumba du gis jant man yem naa man yem naa man yem naa man yem naa sëñ Bamba